Adja sama gars yi. oui jaajëf. Euh, yéen a feccatu Dieyla ah. oui mm-hmm. euh, oui. noonu gisee si suuf bis bi yi. Ah, si moom coow li bëri na trop xam nga. gaa yaa ngi wax ku nekk mu ngi wax quoi mais showbiz moo demee noonu comprendre nga te maanaam aar bi aar bi moo garaaw quoi booy booy doog ñëw di nga gis lu nekk. xam nga dafa metti yombul gars dañuy gis mm. xam nga gars yi dugg jiw bind lu nice génnee ñoom ñu déglu ko nii bëgg. mais duñu xam kooku lu mu si daj quoi gars yi aussi nañu bàyyi xel ci loolu parce que artistes yi ñoom rek pour ñoom dañu fi nekkal gars yi quoi dañ fi nekkal lu nekk feek ñëpp di leen bégal loolu kese la mais kon ñoom ñoo toog di am lu leen metti loolu laa gis quoi. ok euh, euh, comme que yéen a yàgg fréquenté Dieyla mhm. ban comportement moom nga gisee. non Diey moom cool moom nice amul problème. amul loo koy wax du wax moom dafa cool. billaahi amul benn problème. au contraire ñun sax ñoo koy fekk mu cool ñu koy xam nga ruubee pour mu jàppise mooy loolu mais moom nice amul benn problème c'est que nag xam wax moom mënul ñaax ñun rek gars yaa ngi ñuy woo di wax lu nekk mais mooy loolu ñun ñu ngi suñu wéy quoi nekk suñu job di job anyway maag sama gars yi Oji Squad ñëpp yaatu nañ quoi yaa ma gën a xam d'accord pardon waaye ñun Benno Dance lañ tudd waaye hmm. ñu ngi dëkk Guédiawaye fii Benno Dance actuellement, on nous connaît pas mal, quoi. Tout le monde nous connaît pas mal. Parce que j'ai regardé une vidéo avec Bilou, fatalement Fofobi. Ouais, cartonné, tout le monde a aimé. Et c'est intéressant, quoi. As de Best, on a travaillé ensemble. Peut-être que nous remarqué au Boubarek. Même ISU 114, quand nous avons joué avec moi, d'accord, nous sommes visibles quoi, dans ce domaine. D'accord, juste rec. yokk liggéey quoi. Mm. di woo artiste tamit ñu bañ a ragal. tey ñëw fay danseurs yi di liggéey ñoom. Mm. comme ni ñuy fayee man mu ñëw di leen jëlal di leen monter seen vidéo ñu koy fay noonu la danseur ñëw mun a joxe loo xamante ni par exemple moo jaay sa vidéo. Euh, mu ngi dox macha allah mu ngi dox. ñu nag ñuy tegal son mbalax ñu fekk si afro fekk si break dance te ça day génn produit bi day baax ñëpp koy bëgg ñëpp si toppaat mm. tout le monde aime. d'accord kon côté boobu ñun suñu xel daal na ci parce que nekkul benn façon style dance lañ yor dañuy def danse contemporaine jazz jazz debout hip hop eh, dancehall afro et mbalax aussi mais ñun duñ pratiquer mbalax comme ni ko gars yi di pratiquer souvent dañ parce que suñ dëkk la suñ culture la quoi ñun dañ ciy jël di si liggéey ak leneen mais dañ siy cof tuuti quoi mm-hmm. macha allah Sempéten suñu réel niga la tamit macha allah quoi gars yi oui ñooñu moom ça va au a pass après euh, dañu ay single mu ngi nañoo xaar yéen seen ay single wala. oui mhm. oui dañ nekkoon ci ay projet yoo xam ne lañu war a def ba pare xam nga mënoo def lii ne da def lee mënoo guitare du waxatu quoi xaw ma noonu lañ koy waxee xaw ma yaa ma gën a xam loolu la demee ok sama gars yi naas na waaw jaajëfal nañ leen bu baax di leen bëggee ñëpp. Benno Danse moom jaaroo.